صبر الغازم الذي لا إله إلا هو حي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولقاء الخاتم لما سبق الناس الحق الحقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولقاء الخاتم لما سبق الناس الحق الحقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق الحقيقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق الحقيقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى البالي حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق الحق والهادي لأسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون la ilaha illallah la ilaha illallah قدرة بإمالة لكل مطالب من القبول والأواني وأن بالكلام الذي ملأت به كانك الحرج الأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين حق الذي ترجى الله منها رشد حقائق عين المعارف لكم صراطي اللهم صل وسلم على طلعة الحق بحق منزل أفضل إفادتك منك إليك هذا النور المبلسم صلى الله ملجانا يا شيخنا ملجيان ملجانا عن الوسائل رمان ملجانا هذا زمان زمان على جملتنا في كل يوم ما نغزى ويغزان وأنتم الإذن في زين وعسروا بك اتخذنا بما نرجو مكانا هذه هدية بفضل الله منها إليك يا رسول الله جزا الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا وسفيعنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وآله جزا الله عنا شيخنا وسيدنا ومربينا ووالدنا ومولانا الحاج مالس رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا بآمين ورضي الله عن شيخنا وعدتنا وعمدتنا وملاذنا وملجانا وأستاذنا ووسيلتنا إلى ربنا أبا العباس أحمد التجاني شريف الحسني أعلم الله دارنا وسقانا من فضل رباني آمين وانه ذنوبا بها الأقلام ذائقة وفرج الهم ربي أنت مقتدر اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجود منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباتنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين تقبل الله ربنا دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الأق بالأق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى أني حق قدري حق قدري حق قدري ومقداري العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الصف والوتر وعدد كلمات ربنا تامات المبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وكاشفا كل ضر عنا شديد المحال إني أصبت بداء لطيف يا متعالي Malick nee na waddaawu adna fa jismi mawlaaya xayra waali walaysa li min tabibi siwaaka yaa وصحب وآل وشيخنا ذي المزايا أحمد خذ بالرجال ونجل عثمان شيخ الشيوع إذن الزمال كذا الخليفة بحر العلوم لا في الضلال منصور عديم مثالي كذا الصفي حبيب إلهي صافي الخصال بجاي منك نرجو سعادة كل حال وموتنا في طريق الهمام عزب الزلال بعد شمس الزوال والآل والصحب أصل العنات يوم نضال ما قال بالله زنقب ملا نبأني يا حي يا ذا الجلال Dieu. octobre doo ko seet ba xam lu def la wala lu defuwul ba xam loo ñi mañ a dugaale ba mel la wala loo ñi mañul ba xam ndax loo ñi mañ teg ci kanamu yàlla ëllëg la wala ñi mañoo ko doo ko xool problème ci octobre de rek kiilal boole ca septembre boole ca mois de août juin ak juillet boole leen ca mars mai ak awdal dugal leen ca ba ba ngay dem saxam wee bale delluwaat xoola diggante bi yow loo fi def ci diggante boobu lu dal sa xel loo mën a dugaale bàmmeel ma ne nit nen nit day ko day régler boppam bala yàlla régler nit day ah waxaasi bi nafsi xam la mu xaasabatan boo ko defee luy am xam la xiyaamati kon tarda doona xusraani jërëjëf alaji mahamadul mansour waxaat loolu nee na nit ki na na na na na régler boppam na régler boppam bala ko yàlla régler soo régler sa bopp nag léegi ba xam sa pois xam yaay kan dina tax ëllëg boo dajee yàlla doo perte am na ñoo xam ne du ñu dem aéroport mukk yóbbu bagage loolu peese nañu ko ca kër gi Abdoulaye yaa ngi may dégg de dama ne am na ñoo xam ne bu ñu bëggee tukki te yéeg ne deux fois vingt trois kilos lañu am ci bagage dañ koy peese ci kër gi ba xam ëpp na walla manqué na su manqué su ëppee ñu wàññi ko ba mu tolloog seen poids ñu doo dem aéroport doo àggee doo am problème waaye war a am deux fois vingt trois am deux fois trente teer aéroport ñu peese nga am plus 10 kilos extra de bagage te war ka fay mbaa doo embarqué coono la pour borom kon réglal sa bopp bala la yàlla réglé ku réglé sa bopp jëkk yàlla réglé la su la yàlla réglé bàyyi laa ji man sone doo perte di nga am nga ñaan sëñ Babacar Sy Mansour bii bu baax bii bu gore bii bu yaa dëndëm bii bu mën a muñ bii bu gàttal làmmiñ te bari njariñ danoo ànd ak moom Europe nu ngi ànd ak benn kilifa ci mbooloo bi ku bëgg a bagaas la lu mu gis jël dajale lu mu gis jël dajale waaye sëriñ bi du tere kenn dara dafa xool rek ba ba ñuy dem aéroport la moo andi ciy waxande kenn xamul nu mu toll borom a ngi ci taabal ji sax defe ne dañuy peese bagage bi en groupe parce que mbooloo lañu dañu deret aéroport papa waxal micro bi ne kenn ku nekk ak sa bagage ku ne na peese sa bagage sa bopp ak sa billet ak sa passeport ñu peeseel ki may bëgg a wax mu am excellent bagage war a fay huit cent mille war a fay huit cent mille dellu kër ga xejatu fi te foog nga fay ko keroog laa gis ku naan juróom benn kaas si café yu amul suukar nga xatooy nag ci biir aéroport wa sajurumu baytallahi rasikhina min ba'di nabiti al asamina rahami asalaamaaleykum maa ngi nuyu bu baax président Ousmane mii toog sama wet ak soxna jee assu ak magay mii ak képp ku fi toog bu doon sama sago ku ne damay jaar ci sa tur nuyu la ziyaara la ndax lii yombul guddi gii xam ni ci guddi yi gën a mag ci diine ci la bokk ñépp bàyyi seeni soxla ñépp bàyyi aju bu nu am ñëw ci kanamu Sidi Boubacar Ibn Alaaji Mansour sama doomu turandoo pour màggal kan sëng ba tëdd ci Madinatul Munawwara sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax ki xam ni baayam di Ilimaan Saaxo moom rekk moo amoon takku saanu bu Siidi Bubakar Si xalifa bu tedd ba radiyallahu taala anhu dajeeg sang bu tedd ba rakkam ja xaritam ba soppem ba Mansuur ñëw ci genn tàkkusaan ca ngëpparu gane si ko maa ngi laa nuyu bu baax saaxo di nuyu comme ni ko ma ngay waxe Papa Diop mi xam ni message su Sidi Boubacar moo moom moo koy wax Papa Diop nag sëñ Moustapha Diop moo ko jur maamam sunu bàjjan su nga aas Cheikh Sidi Al Hadj Malick ko ak kan ak du sàll moom nu doon wax soxna Safeetoo ko jur soxna Safeetu ku ko jur Sidi Ahmed si ku jur Ahmed si Cheikh Sidi Al Hadj Malick fii nag Cheikh Sidi Al Hadj Malick lool lool lool sunu baay ba sunu sëriñ ba ki xam ni kenn du ko fàtte dans l'histoire de l'Afrique et du ki njëkk toog ci xilaafa Cheikh Seydi El Hadji Malick fii la dëkkoon rue 15 angle 16 ak kan ak imam di kan di El Hadji Pedro Diop ak kan ak surtout Cheikh Omar Foutiyou sunu baay sunu sëriñ sunu turandoo ñëw dëkk fii Cheikhul Xawmi El Hadji Mansour di inspecteur Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi ñi fi daje yëpp bu doon sama sago ku ne dama lay nuyu waaye Cheikh Ahmed Tidiane sek sunu doom ju baax ji ay magam ñi mbokkal ndey ak baay kër ak kër ak jamii bi ñoom ñëpp noo teg ngërëm lu rëy ci sama loxo bi pour ma jox ko Cheikh Sidi Ahmed Tidiane danaa wax ci samay wax ni nit mën na ëpp mbokkam nit mën na gën a siiw mbokkam waaye ñu duggoon mbokkam nag te Cheikh Seydi Ahmed Tidiane sunu royukaay di Alhaji Abdoul mi xam ne moom noonu dajel jamono nee woon na ku yëkkati sa loxo ndey joor ba ca kaw ni faalewu ma kenn yëkkati sa loxo càmmoñ ñi kenn faalewu ma ni mbir yi kenn yorewu ko kenn rek ko yor mooy suñu bopp tabaraka wa taala kon nag Seck ñoo lay gërëm di la say mag sa kër ndey ak sa kër baay ak gor yu baax yi toog ñoom ñëpp noonu naa la gërëm naa la sant bi ci tegu cheikh nag teg gërëm ci sama loxo nit naa ko gërëmal kenn ku xam ni adduna bi yëpp noo ko xam ci lan sopp Cheikh Sidi Ahmed Tijani ci lan sopp Cheikh Sidi El Hadj Malick radiyallahu taala anhu ci lan kër ndeyam ak kër maamam ak kër baayam lépp lu fa xew na si àq bil àq rek si si njigee nu ngi fab nuyoo bu sàll di ko teg sa loxo nga tegal na ko ci loxo Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si El Maktoum nga tegal na ko ci loxoom ni ko président Ousmane ak présidente yeesaaw ñoom ñëpp nu koy gërëm ak di ko sant ci sa présence tey nag Sidi Boubacar a ngi fi yàlla ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér lu tax ma ngi fi képp kuy wax nasri àq bil àq ak képp kuy jullit Sidi Boubacar fab na la dugale ci xolam baayam Alaaji Mansuur ba Sidi Boubacar jógee tëggee te booba général de Gaulle nekk fi man Mansour nekk fii ci rue 11 kër góor gi ñoo ngi jéen ba Sidi Boubacar jógee Tëngéej jaar si ci moom seexul xaw mi daf ko ni jullit yëpp ak xarit yëpp ak soppe yëpp du tariixa bi rek ku ne ñëw nga ne ma Sidi Boubacar ma nga Tëngéej waaye dina ñëw léegi booba nag sunu baay ba sunu xarit ba maamu jàllaay mii Sidna Isa boobu fii la dëkk moom itam laay noo ngi lay jox cër bi la yàlla jox ci nun ak Abdoulaye kebe mu baax moomu lool nekk suñu xarit léegi nag président Ousmane dara desu ci lu tul jébbal kàddu gi ñu war a wax waaye daal réew mii nuy wax senegal ak réew mii wax Afrique ak feneen ak feneen boo déggee allahu akbar njël dégg na su àq bil àq bu laaj ñuy fu lu jógee ñun Cheikh Seydi El Hadji la amin moom rek moo nekk fii sama baay ne booba ma ngi dëkk ministre de l'intérieur taw bi métti lool ak dënnu yi te Cheikh Seydi El Hadji Malick war dem ci jàkk ji pour julli ji ci zawiya Cheikh Seydi El Hadji Malick ay mag ni ko walaay si mosoo manqué mu ko jàkk waaye tey tinnu rek nga toog ndax te ñu metti la lool ak taw bi kenn mënu ci xuus ñu tuuti mu dégg ay dàll yuy dal ay dàll yuy dal mu ne lool lal la ñu ne ko soldaalu français yi nooy maaj mu ne ñoom ñoom lu ñuy wut àddina rek ñu ñuy xam ne nag ëllëg duñu bëgg fa rasulullah di taxaw ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ñu taxaw fa waaye gars yi jóg leen ñu dem ci taw bi ak ci dund bi kooku mooy Cheikh Sidi El Hadji Malick jàkk joo gis à travers l'Afrique jàkk joo à travers le Sénégal jàkk joo gis ak feneen boo fa duggee boo nee asalaamaaleykum boo nee Cheikh Seydi El Hadji Malick ñu xoolaat la ca kaw. waaw ma mag ñi jàqee pepsi bi ñëw nuy werante mu ni nit ñi tubaab yi bëgg nu toxu mu ni waaye dara du leen jot bés boobu nu jëm nañ ko tuddee mu ne surtout mu naa war a fii mooy midi de Cheikh Seydi El Hadji Malick ko tudd yaa nu yàlla tax ci barkeem. ci daraja rasulullahi cheikh fii laay terminé di la gërëm nag loolu nag Mansour Mbaye la ak di la sant cheikh sa baay sa maam Aziz fii la toog ñu bari war ko mu ni gars yi julli juróom yii nuy def ak aji màkka ak azaka ak ñi xam ne mooy ponk lislaam yépp yàlla soxlawu ci dara ñu ko lu tax du koy def rek si mu ne yàlla def bëgg rek ku ko yëg yëg gi nga sa baay yii ak sa kër ndey ak sa kër maam ak say xarit à travers Sénégal moo tax wallahi mu nu woon tey Cheikh Seck mu nga Tiwaawan mu fekk si la Tiwaawan loolu nag du alal de déedéet jukko ju rafet la koo gis jox ñaari loxo foo dem yaakaar ni lépp lu fa xew war nga ci dugal sa loxo waaye Cheikh Seck yaa ne bu la yàlla fàtte ci dara ci dara ji rasulullahi président yaa ngi fi yàgg a taxaw yàlla may gudd fan yàlla may la wér jee asu xam nga tànt bii de koo gis walaay góor yi bari noonu waaye waat naa ne bu nu doon lim jigéen ñi ëpp doole puuf ca rek sa ngi ci nag kon ñoo ngi lay gërëm ak di la sant ma dikkee ay ma dikkee li nga am doy funu tànte ñu ne ku nu tàntal ñu ne Rasulullah ñu ne ku fa tànt ñu ne ma dikkee waaye loolu ku mu doy dara dootu doy niir maa ngi lay du nuyu bu baax ndax sa kilifa di alxaaj Maas Mbengue ca dëgg-dëgg da ko def kilifa def ko lépp niir maa ngi lay jox cit bi la yàlla jox jàll fàttewuma la laay di la ziar bu baax ndax ca dëgg-dëgg bu ndee wax diine ak lislaam maam def na ci lu rëy ak say maami maam kon nag laay noo ngi lay ziar di la jox cër bi yàlla jox xaaj bamba doy na noo tudd bamba <laughs> doy na sëkk ci l'islam ak diine monsieur le maire maa ngi lay nuyu bu baax ak di la ziar ak yàlla may la gudd fan sarge bi ca dëgg-dëgg diis la waaye am na ku man téele mooy sunu baab tabaraka la ko yàlla téele di nag sama secrétaire Samba Camara bu baax ku dul joxe doo am cër waaw ku dul joxe cër am mukk cër allahumma salli ala sayyidina muhammad mbokk yi noo ngi nuyu ñëpp ñi teew ak ñi bëggoon a teew te yàlla dogalul ñu teew yal na yàlla faj aajo yi ñëpp jéggal ñépp aajo yi ñu mën a wax ak yi ñu mënul wax eh, nuyo bi nag eh, Chérif mu ngi fi mooy sunu kilifa nun jullit yépp yi toog fii ndax maamam moo tax eh, kon ci moom lañuy jaare bu dee wàllu diine ji nuyóob diine ji ci loxoom lañ koy teg moom lañuy jëkk a nuyu bu dee wàllu bokk gi duut sàll mii ak papa yuusu jóob mii sang yu jigéen yi nga xam ne deretu Seydi Hadji lañu te ñu teew fi ñoom lañuy jaare la nuyoo bokk yi bokki kër Seydi Hadji yépp ci ñoom eh, bi ci topp ñu nuyu ilimaan yi teg ci asaatise yi teg ci notable yi teg ci dëkkandoo yi yépp di nuyu sunu bokk yi doon woy ñoom daaw góor ak Chérif ak Mouhamadul Mansour ak bokk yi leen jàppale yépp di nuyu jigéen ñi seen taxawaay rafet na yaakaar naa ni bu jigéen ñi doon wate xawma ku leen dul may carte waaye waykat yi moom dee ñu may carte jigéen ñi ndax taabal ji defe naa jigéen ñi ci ëpp góor ñi toujours di nuyu sunu mbokk alxaaji Tafsir Sakho mi nga xam ni mooy loxo ndeyjooru jooru cheikh Seydi Aboubacar ibnu Seydi cheikh alxaaji Mansour ñuy ànd ci lu bari di séq lu bari di ci teg sunu mbokk mi sunu wetu càmmeñ alxaaji ma dikke njaay moom adresse am mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci teg sunu mbokk di sunu mbokku taalibe alaaji Mass Mbeng nga xam ni buñ ko doon wutal tur kuñ koy tudde ci saaba yi mooy Usmaan ibnu Affaan ca nam daan faje soxla su wàllu xaalis ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa moom it côté boobu lam ca man lépp mi ngi koy def eh, di ci teg ki nga xam ni moom ngeen doon wax Cheikh Ahmed Tidiane Sy Seck yaakaar naa Serigne Cheikh lañ ko tudde eh, yàlla dogal ngeen gërëm ko yéen ñépp te dañu ni Seydi Hadji Malick daf ni bu ñu nee diw am na xam-xam mu ne ndax boroom xam-xam yaa ko wax ñu ni diw baax na mu ne ndax bokk yaa ko wax waaye moom wax dëgg yàlla ay bokkam wax nañu ko seedeel nañ ko loolu ah fii nag sunu teewaay fii ku ne xam na ni sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al moo nu fi yebal nee na boo demee nga nuyul ma sëriñ Mbay ñamu àndal ca mbooloo ma te di ko yëgal ni moom ca ndar sama ndijaay la waaye ci tiwaawan magam laa ndax Seydi Haj Malik e, yàlla dogal muy koo xam ni sëñ Cheikh nee na mbooloo mu sëriñ bay jiite sama tànk du fa bari ndax maa fa nekk ndax Serigne Mbaye fu mu nekk ma fa nekk ci biir ak ci biti fu mu nekk itam wóor na ma ni kenn du jaare ci moom yàpp kër gi kenn du jaare ci moom xeeb diine ji kenn du jaare ci moom xeeb tariqa bi kenn du jaare ci moom itam yàpp bokk yi kon nag moom xawma kan waaye moom mi may dimbali ci sama mission ndax mission bii ma yàlla yan nattu laa ko jàppe ndax famille bu toll ni famille Seydi Hadj Malick nga dem ba mag ca wax dëgg yàlla nee na nattu la ndax lu fa yàqooti yow lañ koy jiiñ waaye lu fa rafet itam xel dina dal ci ni def nga ca dara ah kon nag koo xam ni danga jiite ci famille bu toll ni bu Seydi Hadj Malick nee na ku la jàppale ca yen ba foo tollu danga koy sant te ne sëriñ Mbay ak ku mu àndal lim ma jàppale moo di ku mu àndal boo amee xam-xam koo raw gàgganti ko boo amee alal koo tane dimbali ko ci alal boo amee doole physique foo fekk ku ñuy néewala doole ci tooñ dinga ko dimbali boo amee xel mu rafet dootoo fekkee lu ñaaw te defaroo ko mu ni ku mel noonu nag ku mu nekk ci sa mission di la représenté ci mbooloo war nga koy ñaanal te yëgal ko ni yég naa sa taxawaay te dal na sama xel waaye moom it du moom rekk bu doon moom donga du man lii dafa am ñu ko jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koy yebal tànn ko tànnal ko ñu mu àndal ba tax na ah eh, sëriñ Ba itam yàlla da ko yebal tànn ko tànnal ko ñu mu àndal ngéen taxaw ci wetam ba fu mu nekkul bu ñu waxul ni nekku fa kenn du ko gëm loolu nag day tekki ñaan gu nangu gu Seydi Hadji Malick am gu mu waxoon ni ñaan naa yàlla ba bu kenn xàmmee sama doom ak sama taalibe ba yàlla defal na ko ko eh, Seydi Hadji nag moom wax dëgg yàlla liggéey na liggéey boo xam ne nii ko Cheikh Mouhamadul Mansour mbay mi waxee te Mouhamadul Mansour mbay foo nu ko fekk te nekk ci mission Serigne Cheikh mën nañ ko wax ne ko yaay chefu délégation bi ndax moom xam na nun xam nanu diggam ak sëriñ bi ak fa ñu jaar lépp Seydi Hadj Malick taxawaayam leer na nañ li ko Serigne Cheikh wax ne ko <clears throat> eh, uhibbuka xubban xaalisan qad waristuhu wa xayru nasibi laysi ma warisa chiblu ne ko sopp naa la cofeel goo xam ni dama ko nàmp ci ndey doon na ko ci bàyyi te nee na gaynde gu mag nag cëram gaynde gu ndaw ga koy jox e, mu wax ko itam ni ko wilayatuhu tabqa mada dëhri bikratan tusaanu laha al asraaru baada irtixaalihi mu ni Seydi Haj Malik xel mu rafet la daan résoudre problème àdduna nee na rus naa jël wilaya di ko résoudre problème mu àdduna xel mu rafet laa koy résoudre wilaaya gi duma ci laal dara ba tax sëñ Cheikh nee na lim fi def lépp ci xel mu rafet la ko defe waaye defewu ko ci wilaaya ba nee na wilaayaam gi bu fekkoon ni jigéen la dellu na te amul jëkkër kenn kenn laalu ko moo tax mu ne wilaayatuhu tabqa mada dahri bikratan tusaanu laha al asraaru baada irtixaalihi te bi mu demee itam waa këram gore nañu ba ni mu ñoŋale woon wilaaya ga bañ koo jëfandikoo noonu lañ ko doon ne ñoom itam di jëfandikoo xel mu rafet denc ci seen wilaaya ba ëllëg ñu soog koy jariñoo doonte sax ëllëg seen Cheikh nee na li nu yàlla defal nun nit bu nu goree du nu dem naa ko jox nu àjjana dañuy toog rek bakkook sunu bopp di te xam ni kii la may li mu gën le te ñaanoo ko ko booye bakkook sa bopp rek ñu ni ko waaw lu mu gën le te ñaan nu ko mu may mu may nu ko mu ni def la nit d'abord te nit a ko gënal ci lu mu bind bi mu la defee nit mu def la jullit bi mu la jëfee jullit mu def la ci xeetu muhammad mu bu bu la nag boole del ci tariqatu sayidna cheikh ahmad tidiani radiallahu anhu mu ni loolu yaa def demande waxu yàlla ni ko def ma ko mu ñu déedéet mu ni moo seet rek defal la ko mu ni ki la may le li mu gën te gën la te ñaanoo ko ko nag bàyyi kook sa bopp rek moo tax mu ni haadihi jannatul kiraami wa hal min jannatin baadaha yuqimuuna fiiha mu ni li nu yàlla defal nee d'abord bi ngay ñëw rek fa nga jaar xajoo fa bi nga fa jaaree ba génn te boo lekkul dee boo naanul dee lan moo la wax ni ween wi ci la sa dund nekk nee na bi nga sexee ween wi lan moo la wax ni boo ko muucuwul du ñëw mu ne te àdduna liñ fi embauché nit lépp da ngay am diplôme bu loola jëkk mu ne waaw buñ doon xaar nga dugg école nàmp ba am ca diplôme soog a nàmp foo jëm di xaar nga am diplôme mu boo lekkee ba pare génne ko nga am diplôme mu dem gannaaw ko soog koo man foo jëm mu ni yooyu yëpp mu defal la ko noonu rek nee na ba kera ngay dee loolu àjjana la léegi nag nga demati di ko jongoru ci àjjana ba kook sa bopp rek moo tax mu ne haadihi jannatul kiraami wal min jannatin baadaha yuqimuuna fiha mu ne itam nun Sénégal de war nañu sant yàlla trop ndax yàlla nu may chance mag ñoo xam ni waa Màkka ñoo nu gënoon mag ñu jëkk de ndax yonente bee ki saabaam ñoo gën mag ñëpp waaye noo leen gën mag ñu mujj ndax mag ñee fa nekk léegi de ñoom Seydi Hadji Malick ak sëñ Touba ñu mel ni ñoom ak maam Imaamu Laay wax dëgg yàlla bokkuñoo ñee fa nekk léegi. ah kon nag bu yàlla mayee loolu da nga war a sant di nuyu nag sunu mbokk sunu xarit sunu mbokku daara di sunu mag di sunu lépp alxaaji Yuusufa Njaay Jóob mi nga xam ni wax dëgg yàlla góor gi Mor Basin Ndiaye mi nga xam ni moo ko jur wala mu jur baayam nit la woon koo xam ni kii dafa dafa doon ku dëggu ba Seydi Hadji Malick daanaka rawu ko silmaxay xëy way ni sëriñ Mor Basin Ndiaye warul Maodo si yaari weer fukki fan la am fekki ko e Seydi Hadji Malick nag ñi mu yar ñépp da def ni moom sëñ Cheikh nee na Seydi Xaaji Malik dafa dàq sant andi jëf ni sama kër santul si yàlla la sant mu ne nag fopp fu waay nekk tey jàngle walla ngay dimbalee wala ngay yërëm nit ñi wala ngay defar ak bokk walla ngay defar conflit yu yàqu woon yaa fay Seydi Xaaji ak sant woo mën a sant sëñ aadi mii mu yar def ko ni moom jox ko doomam muy sëñ alxaaji Abdul Aziz mu yar ko ba gis ngeen seede bi mu def ci moom jox ko doomam di soxna Aïchatu si ñu di ko wax soxna Aïda ah moom maam Yaasin Jeng mu móor ma sàmba jéeri jeng moo soxna umul xayri mu gaañu ca Madina góor gi Asan doon ko denc am ca Shamsuddin Ndooy mhm. ah maam Aïcha ma nekkoon Faas am Moustapha Aboubacar Serigne Faas Cheikh Al Hadj Malick mii fi nekk di xalifa sëñ aadi léegi ak Abdou Aziz ma yor daara ja e moom sëñ aadi nag Seydi Hadj Malick daf ko yar defal ko lépp mu ne ko abal Habibi سليل القطب عثمانا وحيد عصرك تأييدا وعرفانا وأخبنك أحسنت في الدين والدنيا معاملة فالله يجزيك خيرا يا ابن عثمانا وأختنك دي وقت نتني لين لا يكفينك شيخ غيره أبدا إن كان يمكن لقياك ابن عثمانا mu ne hali shuyuuxu wa in jallat maratibuhum illa tilamidu id laaqu bna usmaana mu ne Seyd Xaaji daal xam naa ko xam goo xam ni xeebuma kenn waaye li ma wóor sëriñ bu toog ci kanamam sëgg ngay def doo ko siggi di ko xool ndax rus ko mu ne loolu moo tax muy koo xam ni kii yàllaa ko defal loolu te na wonewu ko ah kon sëñ Babacar mii nag moom ku seet rekk Cheikh Al man Mansour radiallahu anhu boo liiree diiwaanam dinga xam ni kër Seydi Hadj Malick li fi daje yàllaa ko def waaye warul woon dajaloo ci benn siècle dafa waroon seekal bu ne kenn ñëw ca ci ku mel ni kenn ci ñoom waaye mu dajale leen ci benn siècle loolu lu jafe la boole leen ci benn famille nga xam ni kenn ku ci nekk ku la xam defe na ni kenn am melul ni yow koo ku ci nekk rek ka nekk yow defe na ni kenn melul ni ndax jikko yu mu xam ci yow loolu nag wax dëgg yàlla bu la ci yàlla boolee da nga war a sant nun dey noo ngi sant man nag sama way jur dama koy ñaanal fu ma toll ndax tudde gi ma tudde Seydi Hadji Malick ndax wax dëgg yàlla sama way jur dafa gëmoon Seydi Hadji Malick ba buy war fas sax daf naan bisimillahi bi as si tefli ca loxo ba dóor ca teg ga soo ko war te yàlla mayoon na ko wàcce na ñeenti junniy kaamil ak juróom-ñetti téeméeri kaamil ak fanweer ak ñett huit cent huit deux mille euh, quatre mille kaamil wàcce na ko teg kaamil bu ne bala moo def xatmu ba day jàng ñeent fukki yaasin Cheikh El Hadj Mansour radiyallahu anhu mas na ko wax ne ko sëñ ma siisee lii day sa jagle waaye ëpp dàqoonu alxuraan ëppoonu jot waaye nag sa jagle la <laughs> eh, maa ngi nuyu sama mbokk alxaaji Malick Mbay ñu di ko xam ci Maodo Mbay muy ilimaan donn cheikh Mahamad Ali Mbay aarif billaay ba nga xam ni sëñ Babacar daf ko daan wax ni bala maa wax sama ndaj di xol toog ak yow nu koy nuyu bu baax wax dëgg yàlla affaire bi rafet na bég na nu sëriñ bi yebal na nu fu ne nu bég ca waaye fii ci raw ndax dañ fay fekk sunu bopp fekk fi sëriñ bi ñi fi nekk ñépp kenn ku ci nekk mën nga koo représenté foo nekk mën nga ko faa toogal ndax ku ne danga nga koo ëmbal yiw ak di ko ñaanal neena na na ñaan yépp yëg na seede yi rafet yi ngeen def ci moom yépp yëg na jàppale gi ngeen ko jàppale yéen ñépp ndax mission bi nee na bu Seydi Xaaji Malick ëpp na kenn faaw ku ne jàpp ci ruq boo ne ndax nee na kilifa kenn du ko dar dañ koy darle dar ko mooy fu mu geesu gis la waaye mënoo ko defal dara dar le nag moo di doo ko gis sax waaye loo yëg ni mbiram la loo ca mën nga def ko dangay defar ba pare rendre ko compte nee na kilifa kenn du ko ne kaay àtte da nga ko naan àtteel naa la mm-hmm. te yéen ñépp nag taxawaay boobu ngeen taxaw fu fi waay gis lu ñaaw danga koy defar soo ko ñëw rendre ko compte ñuy bég lool di leen gërëm di ñaanal nag sëriñ Mbaye ah wax dëgg yàlla moom taxawaayam li may wax ni diine jii muy islaam dafa am lu ñuy wax ngunu ngunu li mooy islaam ganaar ya ca biir ngunu la ñooy jullit yi njàppaan gi jàpp ginaar yi di siiru si mooy ibliis waaye sëñ Cheikh nee na sëriñ Mbay day ngunu li fa mu fa féete siiru sa du fa jaar mukk di dugg ca biir di jàpp ca ganaar ya asalaamaaleykum wa rahmatullah